asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu xew-xew bu mag nag bu rëy boo xamante ni du xew-xew bu baax ma xew ci réew mi yow ñëpp wax ko te kenn ku ci nekk la nga war a la nga ci war a taxawee nga taxawee ko maanaam xepp xal mu lakk sa dàgg moo moo nar a am ci réew mi te sunu borom wax nañu ba tey yàlla alerte nañu ba tey ci Alxuraan wattaqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa واعلموا ان الله شديد العقاب نين مويتو فتنه ناخ اي ريام تي بوب بروم تا فتنه جودنا نا تا خم ناني فوم تام لي خم ني فوم يام سورتو نا والو باس باس اك والو ديني خم نغ كليفه ديني دي نيو ايكري كوم لامب دي اي مبر جيس نغ تاريخ يي نيك تي ليو مي اك بيتي دي اي مبر دي اي ايكري مانام الاسلام بن كير rasulullahi di borom kër ga kilifa diine gu nekk ci réew mi ak bitim réew nekk ci aw ci néeg ba bu ñu génnee daje ci ëtt ba muy lislaam bi jiite ko lii rek du leneen waaw ba ca desaat tamit e, yu bari ñu ngi koy ëtt te fi nekk nii mi ngi am e, mi ngi mi ngi mi ngi jël e, maanaam soulèvement baa ngi jug nànk par nànk moo xew nag ci réew yi ci àdduna yëpp ba réew ma tàkk يالا نتي يالا موسال ديغنت شيخ الخديم اك سيد الحاج مالك بولن كين فيولي ناخ نيوم فيول وون وون انا دو ديما تي جوخي رك سيد الحاج مالك دافا سوخلو وون بن سيرن تيوا دافا سوخلو وون تيلي ني نانا ني بن لا ني نانا نياري تيري لا ndaw lamu yabal mu koy wuti bitim rew ci mauritanie wala eh, bitim rew mu rombu tiyawon bi mu rombe tiyawon ni na jaar nuyu kilifa gu bax ndax ni Serigne Touba yore ak njabootam moo du ñu lu kilifa te ku ñu jox ku ñu jot ci kilifa yi dinañ ko respecté te it moo waxoon ni foo leen gisee nitu yàlla liggéey leen leen te boo leen pare bu leen laaj ak fay def leen ko ngi jëm yàlla loolu Cheikh Xadim moo ko santaane woon kilifa ga jaar ca Seydou Hadj Malick mun ko dama doon jaar di waaye sëriñ bi mu yoon mun ko ah ba mun ko ab téere la soxla woon wax ma wax ko téere bi Seydou Hadj Malick daal ne aw ma comme booba waaye am naa bu nu mel. te jamono jooju téere moo gën a cher ci ñoom château moo gën a cher ci ñoom limousine moo gën a cher ci ñoom ay milliards ndax xam-xam la ndax xam-xam amul prix Seydou Hadj Malick jël téere ba jox ko ndawal Serigne Touba leen ndongam loola jël ñaari abiyat di ay wax moo tax euh, toujours euh, mbind dafa dafa leer Seydou Hadj Malick boo demee joxal ma ko sama mbokk ma te wax te joxal ma ko wax jii muy ñaari abiyat lan la Seydul Xaaji Maalik wax sañ Tuubaa lu ñëpp war a mën a bàyyi xel la ñëpp dañ ko déglu du waxi Ibrahima nag du waxi kenn Alaaji Maalik moo ko bind mu leer léegi nag képp koo xamante ni yaa ngi nooyee Seydul Xaaji Maalik wala Tijaani war nga koo diglu ndax sa kilifa bu diglee da war a jëfe boo xëttee ndigal la la nga ne mooy sa kilifa du sa kilifa ndax diw laa topp ay wax taxul nga topp ko ay jëfa tax nga war a koo topp مني بسم الله الرحمن الرحيم هدي المجب إسلام محبة يا أيها الحباب أدام ربنا لنا حبل الوثال وكفرنا ثر الذي عاد وصل لي الله جمالك موكو بنت داني كو هدي جي ميغي جوكي تي مبوكام سيد الحاج مالك ني بوك نيات بوك بوك غي ناخ ني بوك مام مار بوك من مام واو متي ماكي مام عثمان سيد الحاج مالك مام مار مام مام اند سالي شيخ القديم خول ني مو جيغي رك ñu bokk bokk gi ba pare bokk diine ji ba pare bokk réew mi ni ko maa ngi la jox téere bii muy hadiya jóge ci man ñëw ci yow maa ngi ñaan sunu borom sunu kóllëre gii sunu mbokk gii sunu jëflante bu rafet bii ko ko bëgg a remettre en cause ci njaboot gi gi may yi yàlla nañ ko yàlla fegal Seydul Xaaj Malik moo ñaan te ñooñu bu ñaan yàlla day nangu waaw nee na diggante diggante wu Serigne Touba képp ku ko bëgg a xajamal yàlla na la yàlla fekk ak ko mën a doon parce que ñoom njabootu pas-pas la ñu amee waaw njabootu pas-pas la ñu amee ndax la ñu yore mission suñu borom la mission yàlla la mu wër ci réew mi la la foofu lépp mu def ko yabale bitim réew ñam yabal laa leen war yëpp ñu def ko dañ ci ndaw la dikkee ci Sëñ Tuubaa mu gis téere ba mu kontaan lool moom Cheikhul Khadim mu gis wax ja di mbind ma mu bég lool daal di xaaral ma tontu ko nga yóbbu ko Cheikhul Khadim radiyallahu anhu daal di ne ko jazaakum xayral jazal wahaabu wa fi safal bidaadi laa tartaabu fa kayfa laa wal Mustafa al mujaabu imaamuna wal xit la laa nahaabu Seydi El Hadji Malick naka laa lay delloo loxo ñu bokk kilifa suñu kilifa genn di rasulullahi alayhi salaatu wasalaam waaw la ko Seydil Hadji wax mu tatagal ko ni ko nag man ragaluma noonu kon kenn du dox sama diggante ak yow kon loola tey ñu ngi ko bëgg remettre en cause dañ bàyyi diggante Tijaan ak Murit duñu ay ennemis waaw ñoo bokk benn pas-pas bokk yenn kilifa ndax lay Tuubaa mooy Tiwaawan rek la sëriñ Abdul Aziz Alamin sëriñ Abdul mu mag mu ma ko kon dëb baax daat ni Tuubaa mooy Tiwaawan Tiwaawan yi Tuubaa ku leen di féewale xaw ma lay werd loolu la mag ñi loolu la fi loolu la fi mag ñi bàyyi waaw Cheikh Mouhamadul Moustapha dox ko ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi eh, Seydil Hadji Malick dox ko ba ci sëñ Abdoul Aziz ba ci njaboot yi mu ba ci sëñ Babacar xam nga sëriñ Babacar Sy Mansour ki muy bokkal di lekk murid la ki ko ñëw misaal murid la ngeen déglu loolu xalifa général bi bu tijaan bii ki ñu bokkal di lekk murid la sëñ Tuubaa la yaakaar yi maamam ki ko ñëwoon musal murid la kon yooyu ay bind la yoo xamante ni nañ ci bàyyi xel dama mës a ànd ak sëriñ Mamour mu sëñ Mourala xalifa sëñ Mourala sëñ Mamour jàmbaar ja borom xam-xam ba ki ñu xettali ci wàllu jàng ci wàllu enseignement supérieur ma ànd moom dem sëñ Muniru Njigéen mii timis jot sëñ Muniru ni ko fii kenn du fi jiite yaay jiite ndax yaa moom Tuubaa yaa moom fii loolu rafetu mu ne mukk jox na joxat naa leen digal jiite leen ñu ne ko mukk yow rek yaay jiite bu ne mukk jox naa leen digal sama kër jox naa leen digal loolu rafetu ñu ñu joxalante ay teraanga nekk na kazalika naka njaasaan nañu bàyyi wax ci te arrêté ko ndax lii ñuy def neexul sëñ Tuubaa neexul Seydil Xaaji Malik waaw amul kenn ku war a jar féewle ci wàllu diine du kenn état comme opposition du kenn du kenn du kenn ndax la leen boole dara war leen mën a tàqale kon na nit ñi di wax lu baax tey jëf lu baax Sëriñ Tuubaa amul jot du seeti ko ko motul jóge na këram dem ci dem ba njaar ne fekk fa seetul Xaaji Malik dem ba njaar ne fekk fa Seydul Xaaji Malik sax fa diggan ci moom Seydul Xaaji Malik teral ko lool foofu Sëñ Tuubaa wax wax na fa ak Seydul Xaaji Malik daan ni képp ku bëgg xam tasawuf dëgg ne dem seeti rimaax bu Cheikh Omarul Fuuti radiyallaahu anhu kon teraanga yooyu ñu séq ak bokk googu ak jëflante gi te ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa joxe na werdu xaadir joxe na werdu Euh, euh, Tijaan ci xanu weeru saasir yi Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ndax xalatu jaam yàlla woon waaw ay nit ñëw nañ ci moom jokk ci moom yoru weeru Tijaan mu bàyyi ko ñoom ba léegi néega ni moom la ñuy werd demal ci si Cheikh Mourou bëggee ci yowoon lu leer ñoo xam te ni Cheikhul Xadim werdu Tijaan la leen jox jóge ci tariixa jëm ci tariixa aayul aayul ndax lan lépp benn la na nay lislaam rek lépp benn la ku jóge Tuubaa dem Tiwaawan këram la jëm ku jóge Tiwaawan dem dem Tuubaa këram la jëm ndax ñaay borom borom ñaayu kër yi moom c'est dañoo defoon seen bopp muy benn ndax mbokk gi ak diine ji ak jëflante bu rafet bi kon loola bu bu ko kenn aayal waaw nit heure bu jógee kër Seexul Xadim dem kër Seexul Xadim Maalik man mii day exemple laa ci waaw suñu bokk yi yii kër si Tuubaa lañ ba mu jeex tàkk ci suñuy maam yii ci suñuy maam kër Seydul Xaaj Maalik ba mu jeex tàkk la waaw koo gi ci réew mi am na ñaari côté yooyu kon yooyu nañ ko bokk sàmm nañ sauvegarder bokk gi te bañ di xëccoo état jëru ko lu dul état jëru ko opposition jëru ko lu dul opposition jëru ko parce que réew mu tàkk yi waxeet yi moo ko taal te ñu ngi wax ci réseaux sociaux yi ñépp a ngi génn ku ci nekk la nga gën a ñaawle nga koy wax rawatina weeru ko wi te yàlla wax ni wa xuulu li naas xusna wax yàlla da leen wax ci nit ñi lu baax waaw kon dafa mel ni ñu ko doon def damaa jàpp ni dañoo juum nit nag bu juumee la ca topp bu jéggaloo dañ koy jéggal lu fi amul lu fi amoon amu fi lu ne am na fi ne gis nañ ko kilifa yi bu ñu bëggee lu wax am nañ ko ndax gute gi réew mi nekk fexe ko ci génne jar na wax waaw xale yi ni ñu topp seen bakkan ak jigéen ñi guute gi kilifa diine at war nañ ci àddu waaye ni diine ji nañ ko rafetal tariixa yi nañ ko rafetal parce que duñu ay adversaire waaw ñoo bokk benn làng te làng Rasulullahi ko jiite duñu ay mbër waaw ay partisan la ñu war a doon te moom la ñu doon incha allah rabbi kon lii nuru dara wala lii nuru ñagas nañ ko faxas te teg lépp ci suuf bu dee Idrissa discours yi mu def ndax version bi mu joxe version juif la joxe ni juif yi nee nañu noonu la noonu la ko juif yi di déggi léegi déggin dafa am solo moo tax toujours interprétation euh, maanaam nit pour nga interpréter ay waxam na ko ci laaj lu mu lu lu mu ci jublu bu dee lu bu dee njuumte la ñun njuumte la am na ci loo xam ne naam njuumte la nangam parce que dafa am loo xam ne du domaine am lu dul domaine am nag boo ci xuus da ngay laaj ñi muy seen domaine

du du ko jaral mu dem di omra ji loolu laa jàpp nag ba keroog muy gis leneen waaw ah kon eh, ginnaaw jéggalu na ah maanaam eh, baal ma daal baal naa laa ci topp yee ca des tamit moom bu mu ko ci teg parce que règlement de compte réew mi aw ndax mook Sidy Lamine ñoo bokk lépp mook Bamba Diagne bokk lépp ñoo bokk réew mi mën naa am nañ toog waxtaan autour d'une ndax guerre mondiale sax ci autour d'une table la saafara woo du ñu ay ennemis ay bokk lañu nañ bokk toog waxtaan président Macky Sall yàlla moom la def yàlla moo jiite réew mi xam naa ne te ki jiite réew mi li nga ñaan mooy jàmm am ci réew mi te fan yi yëngu-yëngu am na kilifa ji nii nag ñoo war a dal waaw ñu nañ continuer di dalal te ku ci nekk xajoo sa bopp xajoo sa morom te ñu yaatu dënn te lii ñuy wax di jël di xamb na nangam di xamb ku nekk di wax ku nekk di wax di ëcc fa mu jëm du neex te bu fa àggee ñun ñëpp ñoo koy bokk yëg kon lii daal appel la boo xamante ni. kàddu gu lislaam la waaw eh, kàddu gu sëñ Tuubaa daan woote la kàddu gu Seydul Xaj Maalik daan woote la ndax sëñ Tuubaa dafa ni falaa tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha di noonu kenn koo leen digg mu tudd ñaari seere yi ñi laa ilaha illa muhammad rasulullah ah xaram na ni ab nit noonu ko te ñun ñoo koy bokk tudd waaw tuddoo ko nag taxul nag nga gëm ko ndax anam gi gi gi wane ne gëm nga ko mooy nga jëfee ko maanaam ak njullit de su ko seulement dañ koy naan lu forme fond la yooyu nañ ko bàyyi xel te fexe apaisement am te kuy wax na wax jàmm ndax jàmm ci la réew mi xaj jàmm ci la réew mi xaj wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu